صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن xam ngeen ne yàlla subhaanahu wa taala gannaaw bu ñu ko sante gërëm ko ci xéewalam yu bari di muslu itam sunu ayu bakkan ci moom di wax ne yàlla rek mooy ki nga xam ne ku mu jubal nga jub waaye ku mu bàyyi ci coobareem itam nag kenn mënu la jubal di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa moom mi yàlla yónni te mu matale yónneen ba na yàlla def ci moom salaatu ak salaamu ak mboolem ñoñam ak i saxaabaam mbokki jullit yi ñu xam ne kitaabullahi azza wa jalla huwa xablul matin wa almustaqim wasafahu allahu azza wa jalla bi azima faqad qaala subhaanahu wa يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi téere yàlla bii di alquraanul karim mooy buumam gu dëgër gi tey yoon wu jub wi nga xam ne képp ku ci jaar yaa nga tege ca yoon wu baax wa yàlla melal ko ci anam yu bari màgg nag moo tax yàlla di wax ne yéen nit ñi na ngeen xam ne aw laya ngi nii ci seen kanam lu leen doy sëkk ja bis bu yàlla sàkk mi ngi ci seen kanam bàyyi ko ci seen boroom yàlla wàcc ko muy ak leer gu biral lépp lu su a xam mi ngi ci muy alquraanul karim yàlla ne qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin yàlla andil na leen ak leer leerug njub leerug baax waaye leerug jàngale ak leerug jaamu yàlla subhaanahu wa loolu moo di alquranul karim tey nag ñu tànn ci benn saar yi nga xam ne ñu bare baree bari ci nun miin nañu ko seen àlluwa àgg na ca muy gone muy mag léeg-léeg nu di ko jàng ci biirug julli waaye tey nu bëgg a taxaw seetlu def ci faram fàcce ba xam lan la saar wi di wax ak lan la ci yàlla subhaanahu wa di wax saar boobu mooy ban moo di suuratul aala ñu di ko wax sabbix isma rabbika al aala alladi xalaqa fa sawwa walladi qaddara fa hada saar wu màgg ngi noonu ñu bari miin ko nag lool waaye ñu jéem a seetlu ba xam li ñuy faral di jàng waxtu ne rawante na ci safa ak wétar ak yooyu Euh, nu jéem a xam ba xam li ñuy wax lu mu doon sabbixisma rabbika al aala mooy yàlla subhaanahu wa taala mooy wax ak yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko nazzih isma rabbika al aala al azim an kulli ma laa yaliqu bi jalaalihi fi daatihi wa sifaatihi wa asmaa'ihi falaa tadkurhu illa ala wajhi taadimi la sabbix na nga sellal te màggal isma sa boroom al bi gën a kawe mboolem kuy kawe kon sabbix isma rabbika al aala sellalal sa turu boroom mu màgg mi te kawe ci lan nga koy sellal an kulli ma laa yaliixu bi jalaali lépp lu yëllul ci yàlla bul ko jegeel yàlla kon bu yàlla waxee loolu yonent bi yóbbaale na ñépp nag ba ci man ak yow ak keneen ak ku man doon sellalal sa turu boroom mu màgg mi ci lépp lu yëlluwul ci moom bul ko tudd ci yàlla bul ko melal ci yàlla bul ko ko wooye itam bul wax muk ci yàlla lu may ak sellal loolu mooy sabbih isma rabbika al aala lu tax nga war a wax loolu alladi mooy ki nga xam ne moom yàlla xalaqa fa sawwa fa huwa alladi xalaqa alkaainaati jamiaha wa awjadaha min adam wa jacalaha munshaqatan muxkamata wa saw baynaha bay l ixkaami wal itqaan yàlla bi nga xam ne moo bind te kenn ku ne bind ba jaadu ci yow jekk ci yow mu jox la ko mboolem lu nekk yàlla ko bind yàlla bind lépp nag amal ko ci gannaaw ba nga xamante ne amutoon tey def ko mu amee bind bu xereña ba yellu ca moom yamale ko ci itam ci ak xerande ak xereñe kenn ku nekk mel na nga war a mel nga xool doomu aadama ci ab taxawaayam mu jóg di doxe ñaari tànk yoor ay loxoom mu jëm suuf ab boppam boppam jëm ca njëxam nga xool na mu bindee boroom ñeenti tànk mu yëkkati bee tànk teg ca ba ca des mel ne dafa sëgg te sëggut noona la ko yàlla binde loola moo tax yàlla ne alladi xalaqa fa sawwa kenn ku ne moo la bind nga xool ndox suuf li nga xam ne amuti tànk te nga séen ko muy dem te xamoo lu muy doxe yax ya nekk ca biir yaramam ndekete moo di ay tànkam kooko moo di ndox suuf yàlla defal ko der boo xam ne bu demee ba der bi war a màggat nga xam ne mën na ko indil ak ñàkk doole yàlla dindil ko der boobee joxaat ko beneen der boo xam ne moo ko yokk doole loolu moo tax yàlla ne alladi xalaqa fa sawwa nga xool rab wi nga xam ne ay donq la am donq yooyu moo koy aar ci sedd bi aar ko ci tàngoor wi aar ko ci yeneen feebar yeeg yeneen microbe yi ko mën a lal waaye bu dee lu war a naaw mu naaw loolu moo tax yàlla ne alladi xalaqa fa sawwa mooy ki bind te kenn ku ne mu jox ko bind nga xool mbonaat ak na mu bindoo yàlla bind ko jox ko la koy aar mu nekk ca biir lenn lu nekk itam yàlla jox la arme benn mu nekk ci say bët mbaa sa sens maanaam sa xet li ngay foon nga xam ne boo la dara xeeñee nga xam lu mu doon len lu nekk yàlla wutal na ko yooyule kon yàlla ne na alladi xalaqa fa sawwa walladi qaddara fa hada alladi qaddara kul xalqa kulla shayin alladi qaddara xalqa kulli shayin wa actaahu maa yastaxiquhu wa maa yumakkinuhu min adaa'i muhimmati allati xuliqa laha wa hada kulla maxluuqin ila isticmaali maa maxtasahu allahu bihi li adaa'i wasifatihi walqiyaami bimaa yuslihu ala xaalahu yàlla bi nga xam ne ne na wallazi mooy ki nga xam ne dara moo nattale leen lu nekk mu natt ko ca nam mu war a mel fa hada kenn ku ne mu won la yoon wa nga war a jaar ba dund ak na ngay def ba def li yàlla sant lenn lu nekk yàlla won na ko muy def ba dund ak na muy def ba mucc ak na muy def ba def li nga xam ne moom la ko yàlla sant ba ci gàncax gi sax gis nga waxtu wi nga xam ne ci lay sax waxtu wi nga xam ne ci lay meññ bu dee garab guy meññ waxtu wi nga xam ne ci lay ñor bu ñor jotee mu ñor waxtu wi nga xam ne ci lay tóor tóor bu tóor tóor jotee loolu mooy di qaddara fa hada yàlla dogal te lenn lu nekk moo lay controle di la wax ni nga xam ne noonu ngay def lenn lu nekk yàlla ko bind jagleel ko nag lay tax mu dox ca anam ga mu mën a dox yàlla mi mbind garab gi def ci moom doom bu neex buñ mën a lekk mu jaarale ko ci tóortóor jaarale ko ci def ay kàmboot jaarale ko ci def uh, doom bu ñorut buñ kenn mënta lekk muy benxal waaye bu demee ba ñor ñu mën koo jëfandikoo loolu lépp walladi qaddara fa hada kon sabbih isma rabbika al aala alladi xalaqa fa sawwa walladi qaddara fa hada kooku mooy yàlla subhaanahu wa taala walladi axraja al maraa moo tax aaya bi ko jiitu walladi qaddara faxdaa yàlla wax ne qaala rabbuna alladi actaa kulla cheyin xalqahu thumma hada ba demee ci beneen aaya ba yàlla nee na qaala rabbuna alladi actaa kulla cheyin ku nekk rek na la yàlla binde la la war a na yàlla war a binde na la la binde nam la bëgg a binde noona la la binde nga xool bu dee nag wi na ko yàlla binde nga xool bu dee gëléem gi taxawaay bi ko yàlla binde nga xool bu dee leneen xar mi ak lum ci man di doon rek nga gis wuute gu mu wuute ak moroom bu mbindeefam rabbuna alladi aata kulla cheyin xalqahu thumma hada yàlla jox kenn ku ne nag na mu bind moo xam daa ñaaw ci moom wala daa jekk ci ñu koy xool waaye noonu la ko yàlla binde kon def na lenn lu nekk rek mu bind ko ci anam ga nga xam ne noonu la ko bëgg a binde moom yàlla bi ñu bindee nag kaa inaat yooyu li war a nekk war a am bakkan war a noyyi wala li nga xam ne dafa war a sax wala li nga xam ne dafa war a tooy mbaa li war a wow yàlla ne walladi axraja al maraa kon bu yàlla bindee ay bakkan faaw mu jox leen lu ñu lekk moo tax yàlla ne walladi anbata nabaata li tastafiida minhu almaxluqaat min فما من نبات إلا ويصلح أن يكون مرعى لنوع من الحيوان yàlla daal di bind am ndox bind suuf bu tawee gàncax gi sax wallazi yàlla mi nga xam ne axraja moo génne al maraa mooy lépp luy gàncax guy sax gàncax guy sax gàncax mooy ñax mi sax wala garab gi sax wala dég yi sax wala lum ci man di doon yàlla subhaanahu wa taala moo ko bind lu tax li tastafiida minhu l maxluqaat ngir li yàlla bind man cee jariñu li yàlla bind lenn lu nekk am na loo war a jariñoo kon fa ma min nabatin illa wa yasluhu an yakuna maraa li nawin min al amul genn gàncax ñax goy gis mu sax ci kaw suuf walla garab te du am na koo xam ne borom bakkan boo xam ne moom rek lay wër ngir jariñoo ko bu dee ci gëlëm gëla nga gis ne dégg ya gën a ñagas muy dégu sump bi wala dégu leneen bu ñaw bi moom daf koy rocc di lekk na mu ko neexe am na geneen ñax gu tooy gu ne ca suuf goo xam ne moom képp la fas wi di wër ngir lekk wala bu ko gisee moo ko gënal waaye yow doomu aadama tey boo ko lekkoon sa biir metti yàlla ne la déedéet am nga sa gàncaxu bopp demal nga dagg ca salaat sa wala yeneen ya nga xam ne moom la la yàlla jagleel yow te bàyyi fa la yàlla jagleel nag bàyyi fa la yàlla jagleel xar bàyyi fa la yàlla jagleel gëléem bàyyi fa la yàlla jagleel yeneen maxluuqaat yi ci des am na ñax goo xam ne boo ko lekkee sa biir metti mën na laa jural jàngoro waaye bu ko nag wi lekkee mbaa xar mi dara du ko dal loolu lu tax walladi di al mar'a kooku mooy alladi anbata nabaata li tastafiida minhu almaxluqaat mooy yàlla subhaanahu wa taala kenn ku nekk wax na la li sa biir nangu ak li sa biir bañ moo tax lenn lu ne nga gis la muy lekk yow mii doomu aadama mën ngaa xool la muy lekk loola jaaxal la lool waaye fekk na loola la ko yàlla bindal te ca loola la ko yàlla organ euh, euh, jëmale itam yàlla ne fa jaalahu xusaan ahwa yàlla joxe foofu misaal ci dund ne kat bant bu masa tooy danga masa wow lépp lu tooy danga wow fa jaalahu ñax moomu bi ko yàlla bindee mu naat wert nit ñu di ko jariñoo ci anam yépp bu toogee ab diir fa jaalahu mu def ko moom yàlla xusaa an muy puuke axukaa boo xamante ne bii dafay mel ne lu xonq di xàll bam yàgg mu far ñuul puuke mooy bu ndox mi dee wala walangaan di dem moo xam ab taw bu bari la wala am yolne la euh, tilim jane ca kaw bant yaag ñax ya nga xam ne moom lay yóbbaale loolu la ñuy tuddee xusa loolu mooy puuke lañ koy wax ci wolof yàlla nee na bu gàncax yi ño nag ba rafet bañ jariñu ci ba noppi ah fa jaalahu xusaan ahwa noonu it la doomu aadama mel nag lu dund gi neex neex lu taar bi bari bari lu alal ji bari bari lu yëf yi xumb xumb xumb day mujj rek nag dellu fa gàncax googee dellu woon muy delluwaat ca suuf mel weneen melokaan wu bokkut ak wañ ko xamee woon moo tax yàlla ne kon wa baada an yakuna nabaatu nabaatu axdar yajcaluhu allahu taala hashiman yaabisan kalxuthaa'i alladi yaxmiluhu saylu lawnuhu daaribun ila sumra bu gàncax gi naate it tuuti rek mu daal di soppiku di xonq di gooy di dee bu yàggee mu ñuul noonu nag la yàlla melal ci doomu aadama itam ab dundam dafay gën di màggat nga gis ko ba mu yàgg lenn ci bëñam deñ nga gis ko ba mu yàgg kanamam weex tàll ak bi jaaw nga gis ko ba mu yàgg bët yi di naqari nga gis ko ba mu yàgg muy dox mel na kuy soox fa jaalahu xusaan ahwa dellu rek ca fa nga xam ne mooy fa yàlla jëme ñëpp mu dellu si di wax ak sayidna muhammad sallallahu alayhi wa ne ko sa nuqri'uka fala tansa loolu lépp nag mi ngi ci lii di bëgg a ñëw muy alquraanul karim sa nuqri'uka danañu la jàngal alquraan ba man ko fala tansa te doo ko fàtte yàlla ne na ko sa nunazzilu alayka quraanan taqra'uhu wala tansha minhu shay'an yàlla dana la wàcceel alquraan joo xam ne doo ko fàtte loolu nag waadun min allahi taala li rasulihi bi annahu lam yansa min alqurani shay'an yàllaa ko dig yonent bi ne ko doo ci fàtte dara lu may nag illa ma shaa allah innahu yaalamu aljahra wa ma yaxfa illa ida shaa allahu an yunsiyaka minhu shay'an fa huwa qaadirun ala dalik wa huwa tabaraka wa taala malikun qalbaka wa aqlak wa aalimun bi sirrika wa jahrik fala yafuutuhu shay'un mimma fi nafsik yàlla subhaanahu wa taala nee na muhammad sallallahu alayhi wa sallam danaa la wàcceel alxuraan jooy jàng te doo ko fàtte loolu mooy ba alxuraan dalee wàcceeg léegi di junni at lu tegal nit ñaa ngi koy jàng nit ñaa ngi koy mokkal duñu ko fàtte waaye il mu ne yonent bi illa ma sha allah loolu da koo dellu ci machi am muy coobare bi yàlla bu neexoon yàlla tey mu fàtte ca la mu ca fàtte moo xam aaya la moo xamub suura la moo xam baat la illa ida shaa allahu an yunsiyaka minhu shay'an fa huwa qaadirun ala dalik ndax yàlla moom mooy ki man te mooy def li ko soob moom moom xolub muhammad moom am xelam bu ko neexoon mu fàtte te wa aalimun bi sirrika wa jahrik moo xam léppi muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy sa nuqri'uka fala tansa yow muhammad illa ma shaa allah innahu yaalamu aljahra wa ma yaxfa wanu yassiruka lil yusra yàlla dellu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waynu wa yuwaffiquka rabbuka ila tariqati albaligati alyusri wa yashrahu laka shar'an samhan yashulu ala annufuusi qabuluhu wa ala aluquli fahmuhu yàlla ne ko wanu yassiruka danañ la jàppandalal danañ la yombalal danañ la dëppaleel lil yusra jox la diineeg yoon wu sell wu yomba jëfandikoo woo xam ne xel dana ko nangu xool dana ko mën a nangu itam kon diine lislaam nu yassiruka lil yusra yàlla ne ko danaa la jàpp joxal diine joo xam ne diine ju yomba dégg lay doon diine ju xel di nangu lay doon ci képp ku yàlla dëppaleel nag nga wan mën koo dégg kon diine ngi noonu yomb naa dégg yomb naa xam yàlla ne ko fa dakkir in nafaati dikra fa dakkir na nga fàttalee inna faxaat bu fekkee am na njariñ ak dikra ak fàttale bu amul njariñ nag jëru ko fa dakkir man taataqidu anna dikra tanfacuhu wadu man taataqidu annahu yujibuka wala yusiik fa min chani dikra an tanfa fàttaleel waxal ak nit ñi ci koo xam ne yaakaar nga ne boo ko waxee dana dégg boo too bàyyi dana ko dégg koo xam ne nag lu àdduna yàgg-yàgg du dégg du nangu kon njariñ nekkul ca fàttali bàyyi fa kooka fa dakkir na nga fàttalee inna faxat ndeem jariñ na ad dikra fàttali bu fàttali dee jariñee fàttaleel waaye sa yadakkaru man yaxsha ku yàlla nara ku nara texe ku yàlla nara yërëm ku nara jariñu ci àdduna ak alaxira sa yadakkaru dana fàttaliku man képp koo xam ne yaxsha dana ragal yàlla wa innama yantafiu bi tadkirika man yaxsha allaha wa yaxaafu ciqaabahu li annahu huwa alladi yataammalu fi ma taquluhu lahu wa tudakkiruhu bihi képp ku dara jariñu ëllëg dana nangoo ko ndax ku ragal yàlla boo waxee mu déglu la kon ñi nga xam ne nar nañoo texe yàlla dana def ci ñoom ak ragal goog bu ñu waxee ñu ñu dégg ko wa ashqa waaye te janna bu xaa te muy moytu te muy daw te muy bañ al ashqa wooy texee di ñi nga xam ne naruñoo texee di boo jàngee alxuraan ñu faxa seeni nopp jóg dem wala ñu dar seeni nopp ne duñu ko dégg wa yabtaxidu an haadihi tadkirati rajulu shaqiyu almuaadinu almusirru ala aljuhuudi inaadan wa istikbaaran koo xam ne nar du ko dégg mukk day defee ne ba tey la doon wax ak njabar la waxi jinne la wala lu kenn xamul la yàlla ne wa yatajannabuha al asqa ñi nërta texe duñu nangoo dégg alxuraan kon loola tàmbalee ko ci yéefar nag waaye ba ci sunu jamonoy tey ji nag ñu war a am seetlu bu baax ci ndax nangu nanoo déglu ak waare ndax nanoo nangu nangu nanoo dégg ku ñuy delloo ci yàlla ndax nangu nanoo déglu kuy firi alxuraan ci ni ko borom téere yi firee nuy dégg man cee jariñu ويتجنبها الأشقى كند الذي يصلى النار الكبرى الذي كنغا خمني يصلى دنا جارو النار صور الكبرى وغنمج وهو الذي يدخل نار جهنم ويذوق العذاب فيها يصلى أي يعني يدخل النار كيغا خمني نانغوتا دغلو لي نكوي وخت يالا yàlla nee na bu ëllëgee nag ca sawaraw jahannama woowee nga xam ne moo gën a rëy ci sawara yi foofa la ko yàlla di dugal bu ko fa dugalee ba noppi nu koy def yàlla ne summa laa yamuutu fiiha wala yaxya summa laa yamuutu topp lu dee nag ba mën a noppalu fiiha sawara woowee wala yaxya te du dund itam geneen dund am njariñ yàlla nee sawara woowee kii nanguwut a dégg alxuraan nanguwut a dégg waare sawara ku ñu ca dugal bu fekkonte ne dangay faatu mu jeex nga def këriñ dem kon nga noppalu waaye yàlla nee na thumma laa yamuutu fiha wala yaxya moom la alquran di wax ne kullama nadijat juluuduhum baddalnaahum juluudan xayra ña nga xam ne ñoo dem sawara saa bu ñu leen lakkee ba seen deru yaram wi kotomu ba nar a def këriñ ñu génn ko defaraat ko ba mel na meroon ci ab naataay ñu dugalaat ca sawaroo summa laa yamuutu fiiha wala yaxya وهذا الشقي الذي يعاقبه الله على كفره وضلاله بالعذاب في النار جهنم الكبرى يبقى في العذاب خالدا لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة فيسعد فيها du dund mukk dund gu neex waaye du dee di noppalu xadd aflaha man tazakka koo xamante ne bii nag yàlla def na ci yow nga nar a texe yàlla dana la def ci yow nga sonne sa bakkan bi ak sa xol bi ak sa làmmiñ wi ak sa yéene ji xadd aflaxa texe na man képp koo xam ne te zakka sellal na boppam wa xadd adraka alfalaha wa zafira bil bugyati man zakka nafsaha man zakka nafsahu wa taxaraha min alshirki wal kufri wal maasi ku nar texe daal mooy kan texe mooy am pajug aajo am la nga doon bëgg kooku mooy kan man zakka nafsahu wa taharaha mooy koo xam ne sellal na bakkanam laabal ko ci bokkaale fexe ba du doon kuy bokkaale yàlla fexe ba du weddi diine lislaam ci genn anam ci genn xeetu kufri yi kufru nifaaq wala kufrul milla wal maasi ak ay moy sellal na bakkanam ci ay xeeti mooy yàlla kooku mooy ki nga xam ne xadd aflaha man man tazakka qad aflaxa texe na man tasakka qad xarfu taxqiqin la araf wuy dëggal la ne amul benn werante ci ne aflaxa man tasakka ki sellal boppam daal kooku mooy ki nga xam ne moo taxe bu ëllëgee wa dakara sma rabbihi fa salla wastadkara qalbahu daa'iman sifaati rabbihi min aljalaali walkamaali fa xadaca li jabaruutihi wa xashaca qalbuhu lahu wa dakar te mu tudd melo yàlla yi isma rabbihi turu sa borom meloom yi fa salla tey julli tey julli julli yi juróom tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa dakara isma rabbihi fa salla tey julli julli yiñ ko sant bal tusiruuna alxayaata dunya yéen nit ñi inna annaasa yu'athiruuna alxayaata addunya ala al axira wal aqlu yurshiduhum ila anna al axirata xayrun min addunya li anna al axira li anna al axirata daa'imatun baaqiyatun والدنيا زائلة فانية والعاقل لا يؤثر الفاني على الباقي بل أهم nit ñi am na ci ñoo xam ne tuusiruuna dañuy gënal jël seenu àdduna sépp def ko ci seen adduna alxayaata dunya muy dundug àdduna alal axirati ci dundug alaxira waaye yàlla nee na wal axiratu xayrun wa abqa alaxira yi ëllëg jee xayrun moo gën fuuf ci yéen maanaa fàggul ko aw yiw moo gën ci yéen wa abqaate moo gën a des daa iman wa abadan dootoo fa jóg ba mukk te àdduna moom day jeex loolu moo tax yàlla ne bal tuuthiruuna alxayaata dunya ñi jël àdduna def ko muy séen lépp fàtte alaxira mbaa ñu def ca tuuti nañu xam ne wal axiratu xayrun wa abqa alaxira moo gën fuuf ci jëf jëmale fa te moo gën a des ba faw itam kon loolu moo di alaxira yàlla wax ne inna haada la fi suxufi al ula inna diina allahi na ngeen xam ne diine yàlla ji ak wéetal ko gëm ko téere yi ko jiitu woon yépp ñoo ko bokk bépp yonente bu mas woote wala ku ñu masa a joxub téere rek tawxiid bi benn la mooy wéetal yàlla ci turam yeeg meloom yi ak jaamu ko ni mu ko bëggee bañ ko bokkaale wa huwa allazi anzalahu allahu ala rasulihi muhammad min awamira wa nawaah wa waadin wa waciidin wa sharcin huwa biaynihi maa anzalahu ala al anbiyaai saabiqin wa warada fi kutubihim inna haada naka lii kat la fi suxufi l ma nga ca téere ya jiitu woon téere alquran bi ñu wàcc ci muhammad li yàlla wax fii moom la wax ca téere ya ko jiitu woon muy jaamu ko gëm xéewalam yi teg ko palaasam waaye itam wéetal ko bañ ko bokkaaleeg dara inna haada naka lii la fi suxufi l uulaa nekk na ca téere ya nga xam ne ñoo jiitu woon yi ban ak ban suxufu ibrahima wa muusa suxufi ibrahima wa muusa suxufi ibrahim mooy téere yi yàlla wàcc woon ci ibrahim wa muusa ak muusa wa min hadihi alkutubi alsaabiqa allati anzalaha allahu tabaraka wa taala ala rasulihi allati xawat diin allahi suxufu ibrahima wa muusa alayhima assalaam idan fa ida kaana almuxaatabuuna qad aamanuu bi ibrahima wa muusa fa alayhim an yuminuu bi muhammadin li annahu lam yati illa bi ma jaa fi suxufihima bu fekkente ne gëmoon nañ téerey ibrahim gëm téerey muusa ah, kon dana yey lool ci nit ki mu gëm ne lii itam ndax ka wàcce woon yooyu moo wàccewaat yi kon dana yey ci ñoom ñu gëmal muhammad téereem bi alquraanul karim ndax loola rek moo ci nekk suxufi ibrahima wa muusa loolu kon moo di li nga xam ne moo di suuratul aala euh, di sabbih isma rabbikal aala